cortège yu Ousmane Sonko euh, bi nga xamante ni moom la ñu daal di attaqué ba Malick Gakou euh, leader du grand parti daal di ci amee ab gaañu gaañu gannaaw ab xeer bu ñu ko daal di door ci loxoom moom moomee tey nan nga gisee li nga xamante ni moo xew fa foo ci Koungheul. mu nekk loo xam ne tout d'abord dañ koy ñaawlu. Mhm. loo xam ne dañ koy déplorer lu déplorable lu ñaaw. donc euh, analyse bi ma la ciy jox mooy li ma lay njëkk wax mooy. Hmm. position bi. moo nekk l'opposition la plus médiocre de l'histoire politique du Sénégal. ah pourquoi. opposition bi. lu nga wax loolu. une opposition manipulatrice une opposition sans argument une opposition violente une opposition qui a la rancune en bandière une opposition qui n'a pas de programme. Mm-hmm. une opposition qui n'a pas d'offre. mais aussi une opposition qui n'est pas prête à aller aux élections législatives mooy opposition bi. pare wuñu pour dem élection. mosuñoo mën a pare. lu tax nga wax loolu. ku pare du provoquer ku pare du xeex boo paree wóolu sa bopp xam ne fi ñu war a xeexee nekkul lenn lu dul ci urnu yi boobaa doo utiliser la force. Mhm. xam nga lan lii lan nga ciy jàng. Mhm. bii mooy bu mënoon nañ bàyyi. Mhm. la loi de la jungle dominée. la loi de la jungle mooy lan ku mën sa morom duma hmm. mooy ko ëpp dool rek dóor. d'accord te xeex bi amoon wala altercation bi amoon. oui ils étaient minoritaires. maanaam ñoom ñi attaqué cortège bu Ousmane Sonko ñoom minoritaire woon autrement dit que ne ñoom mënoon nañ cee dee. pourquoi ñu bëgg a jël risque boobu. risque boo xam loo tax ñu ko jël. xaalis bi ñu leen di fay. bul foog ne xale yi dinañ ñëw di dugg lu lu ni mel te duñ encaissé. tey jii xale yi toll nañ foo xam ne ñenn ci ñoom. Mhm. yenn autorités yi suñu la jëlee comme façon de politique bi ñu daan def à l'époque mooy di la jox deux mille cinq cent wala di la jox trois mille ak t-shirt wala cinq mille mais ñu ngi koy continuer ba léegi léegi ci violence lañ koy teg. d'accord mooy lan dañuy jox xale yi cinq mille. moo xam nga yor ay jakarta ñu jox la cinq mille ou bien mhm. deux mille wala trois mille au lieu ngay daw ci tali bi pour noonu. loolu mhm. cli mën nga ci am clientèle lañ ko jàppee mën ci am dara. léegi du coup xale yi dem dem attaqué ci cortège bu toll ne bu Ousmane Sonko xam ne lu ne mënoon leen mënoon na leen cee fekk. Mhm. yar si sànq maa ngi koy gis mu def benn poste. te wax na dëgg cest à ñoom dañoo namoon lacrymogène caporal mu ngi koy tudd sànq dañ ko namoon ñoom xam nga tey jii. Mhm. cortège Ousmane Sonko soo leen woowee ci xeex mooy da ngay xaru. koo xam ne dafa jàkkaarloo force publique de la république xeex ak ñoom. Mhm. ba dara dul woon dara. xale yii nii dañoo jàkkaarloo woon ak Macky Sall mi xam ne waa GIGN ñëpp police gendarmerie ñëpp daan génne xale yi jàkkaarloo ñoom di xeex ak ñoom kon tey ji yeneen xale ñetti nit bu ñu ñëwee. ne dañu mhm. yor ay xeer bëgg leen a sànne yu demee noonu bu amul neneen nu mu fa demee rek mooy dañoo bëgg sauver le projet. Mhm. xam nga la moo tax. riposte wuy leen ci xeex bi am na benn riposte bu ndaw bu am parce que mën woon ñàkk. fallait le faire. parce que suñ ko def loon dinañ gaañ seeni kilifa. Mhm. tey jii yaa ngi tudd maali Gakou bi xam ne xaw nañ ko gaañ. tey jii bu xale yi xawul woon riposter donc mënoon na ñaaw donc faleen ñu def benn riposte pour wan leen la woon mu ngi fi ba léegi. Hmm. ñun ñii mënoon ba ñuy nekk opposition. ñun ñoo nekk pouvoir waaye ñu ngi koy man ba léegi. mais da ngeen a bàyyi. mais terewul dañoo bàyyi xamul moo tax dañ bëgg sauver élection yi. bëgg sauver projet bi. Mhm. bëgg sauver référentiel bi. bëgg loi ñu bëgg voter ñu mën ko voter après. Mhm. parce que tey jii gis nga provocation boobu boo répondre à la provocation loolu mooy indi l'annulation des élections. d'accord que ñu dañ leen doon chercher. pour ñu annuler yi. très bien tey jii. parce que ñëpp Sénégal ñëpp dañoo jàpp ne Pastef dañoo bëgg xeex dañoo yàkkamti xeex. Hmm. mais récemment président Ousmane Sonko. Mhm. dafa indi beneen discours mooy lan xamal ndaw ñi ne bu leen yàkkamti. ku leen provocation si affaire Abbas Fall bi sax wax na ci Ousmane Sonko da ko xamoon kon très xamoon na ko parce que xam na seen stratégie xam na liñ bëgg teg na ne parewuñu mhm. ko sànq bi ñuy attaqué Abbas Fall cortège Abbas Fall bi ñu ko attaqué ba pare la leen président Ousmane leen bu leen répondre à la provocation que bu leen répondre à la provocation ñoom dañuy am liñ bëgg te bu ñu amee liñ bëgg élection du am la preuve kan ngay gis si ñoom muy continuer di def euh, caravane comme ni ko président Ousmane Sonko di dafay amul. parce que ñoom jàpp nañ ne ba fi ñu toll ne élection yi man naa bañ a am. Hmm. ba tey jii nii. ba fi ñu toog ni ñoom jàpp nañ élection mën naa bañ am. looloo taxoon xam naa loolu di ci ñëw après. looloo taxoon tey li ñu doon xaar ci Bougane sax amul. waaw bëggoon nañ ko ko jàpp xam naa di nga ci ñëw après. oui loolu yëpp xam nga nga ciy jàngal. lu ma ciy jàngal mooy bañ bëre bëgg bëre. na ñëpp sëgg bëre. suñ ñëwee sax di la dóor di la saaga terewul dinañ bëre parce que pastéfien pastéfien yi nii ma gis nii xale yi nii nii. Mhm. parewuñu pour dugg ci benn coow. Mhm. liñ pare mooy li leen seen leader digal mooy topp leen ci yoon bi. ñu ànd def caravane comme il se doit. ku leen provoquer bu leen répondre à la provocation. nañ dem l' essentiel mooy suñu discours na jàll. te discours président Ousmane Sonko jàll na li mu bëggoon wax lépp wax na ko. Mhm. te discours boobu moo metti seen xol. parce que discours prometteur la discours boo xam ne xale yi dañ dundal yaakaar fi nii. yaakaar dafa dekki. xale yi gis ne ñoom ñi dëkk Koungheul wala si zone boobu noonu dinañ mën a am développement dañ leen a fàtte woon parce zone yooyu noonu euh, régime sortant daan ñu fa faral di dem mhm. wala bu ñu fa daan dem boo leen ñu votelee dinañ leen may san franc dinañ mhm. leen jox saaku ceeb yooyu leen daan wax mais président Ousmane Sonko dafa ñëw coppi discours yi. Mhm. dafa ñëw indi causerie maa ngi koy wax démb mooy waxtaan. waxtaan ak population bi. Mhm. xool ressources yi n'est-ce pas naturelles yi ñu am. Mhm. moo xam ay suuf sax yeneen ak yeneen. ak ressources humaines yi ñu am maanaam nit ñi xam ne bu leen yokkalee quelque compétence rek dinañ mën a indi développement ci seen gox. mu waxtaan ci ak ñoom xale yaakaar ñoom ñu jàpp ne yaakaar dekki na. si kaw nag biñ ñeneen beneen côté bi biñ déggee discours bu ni mel ñu jéem a attaqué yaakaar ne bu ñu attaqué cortège bi comme mm-hmm. ñoom bariwuñu suñu attaqué cortège bi xale yi dinañ répliquer léegi réplique boobu noonu dina indi xëy na ay blessé yu bari ba mm. situation bi am fu mu toll maanaam mu empiré wu ba tey jii président de la république jël dogal ne élection yi nañ ko pousse wala nañ ko annuler d'accord parce que jamono jii may wax yow nii ñoom parewuñu te du dernière attaque de dina amaat yeneen attaque ah attaque yi jeexagul Euh, provocation yi jeexagul. pourquoi mu doon ci euh, côté siège wu takk wàllu. waaw parce que ñoom nekkoon nañ fa di xaar xam nañ ne ñii dinañ fi jaar. kon ñoom ñoom la. ñoom la. ñoom waa takk wàllu. ñoom la loolu ñëpp xam nañ ne ñoom la bu dul ñoom ñan la. te te te te te te la stratégie est venue d'en haut maanaam ci kaw la jógee. maanaam. tey jii xam ngeen ñoom dañuy jéem a teg xel. waaw nan lañu jéem a teg xel mooy tey jii lu ci mel ni ay leader mhm. comme seen leader ñu ci mel ni ay Barthélémy Dias xam nga mhm. tey ñun ñëpp xam nañ ne ñu ngi woon Tamba waaw bu dikkee ñoom teg xel ni ñuy tegee xel dañuy comporté comme si que ne ñoom yëguñu lool seen yoon newu ci alors que ñoom ñooy orchestré lii nga ni ma ñoom ñoo koy orchestré dem bàyyi fi xale yi xale yi ñoo war a exécuté comme daal dañ ñoom ñoom Barthélémy Dias euh, ñoom Barthélémy Dias Fall seen yoon newu ci lii seen ñoom Barthélémy Dias seen yoon a ngi ci bu baax ñoom ñooy orchestré wax scénario bi nan lay demee. d'accord comprendre. waaw léegi bu ñu orchestré wax scénario bi ni muy demee parce que président Ousmane Sonko chaque jour Sénégal njaay wala àdduna bi yëpp dinañ xam step yi muy teg maanaam caravane am tey fan ak fan fan fan fan étape yëpp Sénégal dañ ko xam. Mhm. chaque jour dañ koy publier wane dina jaar fii dina jaar fii dina jaar fële. Mhm. donc ñoom suñ ko jotee mën nañ woo seeni i militants. Mhm. orchestré benn violence boo xam ne dina mën a empêcher Ousmane Sonko pour mu bañ a tenir. discours bi mu war a tenir parce que xam nañ Ousmane Sonko fu mu jaar kenn mënatu faa jaar. Hmm. parce que boo fa jaaree amoo amoo argument boo fay teg buy détourner xelu population bi mënta ne te képp ku fa jaar ci ñoom dañ lay yóoxu. Hmm. léegi nag loolu nag lañ bañoon mu am. d'accord mais terewul am na parce que président Ousmane Sonko def na discours am ba pare. Hmm. mais lañ orchestré woon bàyyi xale yi pour xale yi exécuter. xale yi jéem nañoo exécuter mais jàllul. parce que si ñoom la metti metti na ci ñoom trop parce que defal nañ leen ay dóor nañ ci xale yoo xam ne macha allah. Mhm. parce que pour wane ne riposte Pastef la fekk baax. Mhm. mais riposte wu ñu comme nañ daan riposte. Mhm. lan moo tax parce dañ bëgg sauver élection yi parce moo gën a bëgg mu am parce que rek ngay gis ci terrain bi. président Ousmane Sonko bu bëgg loon élection yi am doo ko gis naaj bu tàng bi muy wër di def ay. 14 amul kenn ci ñoom kuy wër 14 heures amul. kenn ci ñoom kuy wër 14 amul. Mhm. temps nga xaw a gis des fois Ba nga. gis ko mu jéem jéem waaw mu ngi jéem jéem lu ba tase nañ tey yëkkati loxo noonu. mu ngi jéem jéem lu day jéem. am waaw day jéem manul mais day jéem. parce que ak jéemam moo tax euh, ki ñuy woowee euh, journal bi ñuy woowee lii quotidien bu Babacar Dione Babacar Dione bu Babacar Dione ñàkkul ne sa régie am nañ image bi bu ñu ko amee nañ ma ko tegal. Mhm. Babacar Dione ci boppam. lii quotidien tey li mu publier dafa ñaaw. Hmm. une affiche frauduleuse loolu mën nañ ko ci porter plainte hmm. xoolal lii lii dafa ñaaw hmm. xoolal jël image bu Ousmane Sonko xoolal oto Ousmane Sonko bi xoolal limousine garde corps Ousmane Sonko bi ñu jël ko Babacar Dione jël ko utiliser image xoolal photo original baa ngi nii d'accord original baa ngi nii gis nga oto Ousmane Sonko. léegi lépp ñu jublu ci lan. affiche frauduleuse pour leurrer la population pour wane ne euh, Amadou Ba am na popularité wala Amadou Ba am na ay militants wala population bi jox nañ Amadou Ba nopp te loolu amul xoola li mu def nii xoolal oto oto Ousmane Sonko bi xool limousine limousine su ko neex mu porte plainte même hmm? Ousmane Sonko su ko neex mu porte plainte. d'accord parce que li affiche frauduleuse la. Hmm. c'est pas normal. mais dañoo bàyyi mu jàll mais Sénégal yëpp xam nañ ne lii manipulation la lii mooy vraie manipulation te lii taxul Amadou Ba am dara. parce que sénégalais yi biñ ko weddee yàgg na. lii xam la lan lay wane lan nga ciy jàng. loo ciy jàng wane ne Pastef moo fi ne Pastef moo man a mobiliser ba ku bëgg mobiliser wu faaw nga caricaturer Pastef pour mën ci génn maanaam jël sa image sax xaw koo dugal ci mobilisation Pastef pour wane ne am ngay nit te amoo nit parce que bul seetlu boo seetlu Amadou Ba ñi ko wër ñi koy xelal lu ni mel nii. waaw mën naa am sax lii da koo jënd. nga di on naa am da koo jënd de. lii mu def nii. waaw man na am da ko jënd li Babacar Dione def nii nii nii. si lii quotidien oui mën naa am Amadou Ba moo ko jënd moo ne ko defal ma lii ma fay la temps. ok loolu mën na ne mën naa am moo ko jënd parce que des fois comme comme gars yi ñu ngi jënd ay vues. YouTube ñu ngi jënd ay vues YouTube. Mm. affiche yi <laughs> journaux yi am na ñuy jënd lii jënd mobilisation lii mooy mobilisation imaginaire mobilisation imaginaire toog fi nga toog rek mobiliser ay nit noonu si sa imagination. na fii. toll na fii. parce que boo seetloo nag ah mais du bett xam la moo tax du ma bett. lu tax parce que boo Amadou Ba ñi ko wër ñëpp ñi ko entouré ñëpp duñu ay nitu dara. Hmm. su ma la joxee exemple Mamadou Ibra Kane. Mamadou Ibra Kane oui. mi nekk i oui. koo xam ne ay employé am chaque jour ñuy génn di def ay grève cinq mois. Hmm. kenn fayu leen. Hmm. ku yor benn entreprise boo xam ne cinq mois mënoo fay say employé te ñoom nee nañ c'est pas la première fois. ñooñ ñooy xelal Amadou Ba pour mu mën a doxal réew mi. ku mënta fay ay dix personnes quinze personnes. nga ne mm-hmm. réew mi lañ war a doxal ba pare di boole ko xaste di xas ay Ousmane Sonko di xas Bassirou Diomaye Faye te yow buñ ne la an sa bërëbu liggéeykaay nga ne mu tel mu ngi fële say employé baa yaa ngi leen fay fayoo leen moo buggaan ñoo yem ci côté boobu ñoom ñëpp. Mm-hmm. ñooñ nag ñooy xelal Amadou Ba ku ci mel ni ay Madiambal Diagne mi xam ne daa mentir mentir mentir mentir ba ñuul kuk. Mm-hmm. ndax ndax mensonge. ni mu mel mensonge parce que tey jii am nga am na ñoo xam ne bu ñu amoon xaalis ñoo xam ne bu ñu amoon xaalis sax dinañ aw xaw am teint xam nga belli leer belli ñun ñi xam ne amuñu amuñu dara ñuul nañ sax waaye suñu ñuul gi sax des fois dina xaw a kii ndax des fois as tuut buñ ko amee sax nañ xaw a kii tuuti sax ah, bi mu nekkee système ba léegi mhm. yor li mu yor yor alal ju dul jeex mhm. day gën di ñuul xam la moo tax muy gën di ñuul mhm. parce que mentir day mentir chaque instant day sos di wax lu dul am ba pare xol bi bon xam nga soo xol bu ñuulee. waaw day loolu day wàcc day reflété ba sa kanam nag. loolu nag moo ko dal ñooñ nag ñooy xelal Amadou Ba. moo tax muy dugg ci yëfi yëfi caaxaan fi waaye di ay falsification. mais wa Amadou nag lu ko waaye waxal wax épargne ko ci li xewoon. ci Koungheul li xew li xew ci Koungheul. waaw ba léegi du ma ko ci génne ñoom ñëpp. doo ci génne Amadou Ba amul kenn ku ma ci génne. parce que ah, boo fàtte ne am na télescopage bu amoon. télescopage am na entre Amadou Ba ak ak Ousmane Sonko maanaam daje daje nañ. Mhm. daje nañ. tàllalante loxo daje nañ tàllalante loxo mais tàllalante loxo fu mu am am am am am. waaw bul fàtte président Ousmane Sonko daf ko lancé ay pic keroog. waaw pic yooyu day jeexal xol nag ku ne la am na deux rapports yu la épinglé. oui te liir naa ñaar yëpp. waaw benn bi quatre-vingt-quatorze milliards beneen bi inspection générale d'État. Mhm. mu leer nañ. Mhm. yow nga xam ne mu ba pare président Ousmane Sonko teg ci ne dans ce cas. yow di nga jéem a wut ay argument yoo gàllankoore élection yi am. parce que moyen bi waral ñu publier ko après ba mën la entendre muy haute cour de justice te pour nga am haute cour de justice faudrait que élection législative yi passé ba nga am trois trois cinquième nest pas des députés maanaam quatre-vingt-dix-neuf députés donc <laughs> moom tamit mën na bokk ci mën na bokk ñi ko orchestré kon donc Amadou Ba mën nañ ko lim ci ñi orchestré mën nañ effectivement. parce que Kaporal ne na Macky Sall moom loxo ma ngi ci biir. Macky mën cee génne mënul ne Macky mën cee génne Kapo wax na dëgg Macky mën cee génne Macky c'est l'absent le plus présent. ah Bougane lañ ko waxoon ndax daañu mais danañ ci ñëw. xam nga la moo tax ma ne la Macky c'est l'absent le plus présent. oui lu tax. Macky fi mu nekk foofu la toog. Mhm. campagne mu ngi koy defee ci WhatsApp. mu ngi koy defee ci TikTok. mais coalition décision du fa jóge te moom joxewul kàddoom. dernier dernier mot bu fay am moom moo koy wax. Hmm. xam na moo tax. waaw moom moom moo am suprématie boobu. moom mooy seen kilifa. nekk seen kilifa mënta weesu mu ne du ma ñëw campagne mais maay doon tête de liste par force. c'est du ma ñëw campagne mais man maay doon tête de liste ñoom ñëpp nangu ko. Mhm. ay mag yi jëmm mu leen ne waaye di loo di leen woo ay whatsapp ñu naan yi di yéem a dëgloo yu demee noonu. Mhm. kon kooku tey bu taxawee décision buy génne moom moo koy orchestré si moom lay commencé.

fekk fi Macky mais ñoom à l'interne réunion nañ mhm. seen intercoalition ba xam ne sondage li muy wane ak ñoom li ñu jot a gis ci terrain bi xam nañ ne Pastef mooy gagné élection yi xam nañ ko ba pare Amadou Ba xam na ni Pastef Ba euh, xam na ko Macky Sall xam na ko booy ndaw yi xam nañ ko booy ndaw yi mooy ñoom Bartok ñoom ñooñu xale yu ndaw yi xam nañ ko ñoom les les les les kii nii petit poussin petit poussin yi mooy ñoom Bartok ñoom ñoom xam nañ ko comprendre waaw léegi ñoom comme xam yi bu mhm. amee mhm. Pastef mooy gagné donc ñoom li ñuy jéem a def mooy gàllankoor élection yi nan la ñuy gàllankoore élection yi par la violence d'accord par la violence par le canal de la violence maanaam violence lañ mën a utiliser pour bañ élection yi am te loolu du fi jàllee parce que ñi ko seqal ñoo leen ëpp xel. gannaaw ba ñu ne le 17 dafa jege. waaw gannaaw ba Bakel euh, ci ñi nga xamante ni ñooy bët saalum réew mi. ñoom ñoo amee woon ay souffrance ñoom mm-hmm. la fleuve bi daggoon dugg ci mm-hmm. seen i kër. Mm-hmm. ñu ne dañu annulé élection yi parce que ñoom dañu nekk ci naqar ak tiis. gannaaw loolu yëpp ñoom ba léegi ñu ngi ci ñu annulé élection yi. pour wàll la ne. Pastef moo gën a yàkkamti élection yi. Hmm. wala gouvernement bi ñu ñoom ci boppam de manière générale ñoo gën a yàkkamti élection yi gis nga li ngay wax noonu noonu. bi mu hmm. amee bi mu hmm. dalee seen kaw waa Bakel. ñoom opposition bi dañoo profité de l'aubaine ni élection yi dañ ko war a renvoyer parce lu ni mel ni ñi mu dal dañ war a dem saafara lool ba pare. lan lañ def état daal di génne quarante milliards. état génne quarante milliards huit milliards yi moo nekk pour wàllum dund mi. trente deux milliards reconstruction. maanaam yàqu tey fa amoon pour ñu mën a defaraat ko kon état dafa anticiper ci loolu mhm. pour wan leen ne fii mën leen am benn prétexte buy wan ne ne yi du am Bakel dinañ fa def liñ fa war a def lépp ba mu jaar ci yoon ba ñu nekk ci dans de très bonnes conditions mhm. waaye élection dina am parce que élection yi bu amul mais budget du am mhm. élection yi bu amul salaire kenn mën koo fay élection yi bu amul gouvernement mënta doxal dara la kon élection faa mu am parce que maa ngi gis benn koo xam ne ndeysaan xam naa dafa mel ni ko jàngul gis naa ko tey mu am benn post bu mu def. Mhm, loolu dañ ci ñëw sax moom. non waxuma waxuma ki ngay xalaat de. am na keneen ku ma gis koo xam ne miinante nañ xam naa ko bu baax. mu def mhm. benn poste ne. Mhm. xam nga tey Sénégal dañoo lever. waaw trois cent euh, euh, millions de dollars maanaam soit cent quatre vingt un virgule neuf milliards. dañ koo lever. xam nga la moo tax ñu lever ko. parce que instant bi koo xam budget ni muy fonctionner jamono ji ñu ngi tool ci ban ban mois. ñu di dugg novembre. fin presque fin d' année lañ nekk. waaw budget bi daanaka as tuut ci des dafay jeex. Mhm. rawatina budget Macky Sall doon utiliser donc budget bi li des dafa jeex. daf bareetul. ak élection yi ñuy dugg nii. xam ne euh, ñu ngi bëggoon a rationaliser ba am huit milliards si spécimen bi mais opposition bi dañoo bañ. Mhm. du coup dépense dafa gën a bare. Mhm. et sans bi kees gi li fa ne bareetul. loo tax gouvernement bi levé waat comprendre nga. ku ma gis lan moo tax ñuy lever alors que gis nañ benn compte mille milliards. Mhm. ñàkk xam état ni muy fonctionner mu ngi noonu. Mhm. ñu naan lan moo tax jëluñu mille milliards yooyu bu fekkee li ñuy wax dëgg la. Mhm. na ut ut ut de justice tant que taxawul loolu mënoo koo régler. c'est ça ñoom seen jàng comme dafa soriwul ñoom opposition bi. amuñu xam-xam. manipulation la ñuy jéem a dund ak sénégalais yi. pour jéem leen nax. pour wan leen ne Ousmane Sonko ay propos de campagne la doon joxe. Mhm. mais li mu doon wax ci 1000 milliards yi mënta ne te pourtant El Malick confirmé na ko démb. waaw daañu ca ñëw sax moom moom très bien mu ngi noonu. donc li may fi may daanalee soxna Ndeye Assou mooy fan. mooy opposition bi. Mhm. violence yi ñuy créé yi ñuy teg yépp mhm. bañ a bëri la rek waaye bëgg bëri. bañ bëri. bëgg bëri bañ bëri. bañ bëri kon épargné nañ ci euh, li xew ni épargné nañ ci ñoom Barthélémy Dias nag. xanaa dégguñu woon ci Tamba. épargne ñëwuñu ko ci. donc kon opposition bi. ñoom la ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. ko ci génne. Euh, Serigne Moustapha Sy. pur waaw génne naa ko ci. moom nga ci génne kilifa googu du def loolu. moom tamit moom Caporal génne na ci waa PDS. waaw PDS mën naa leen ci génne wax na dëgg Capo wax na dëgg. ñaari yoon parce que PDS yàgg nañ ci réew mi 12 ans lañ yor ci réew lañ nekk ci réew mi kenn mësu leen dégg ci violence lu ni mel. d'accord PDS kenn mësu leen Ablaye bopp la. Ablaye Wade dafa jàng Ablaye Wade référence la ci politique bu mhm. Sénégal donc ku mel ni Ablaye Wade ak li mu def ci réew mi mhm. dem ba daanaka nekk quatre presque li nga yegg si cent ans. defoo yenn yi. doo mhm. xaar ba toll ci âge bi. di ko def orchestre yenn yi. te bu ko doon def Ablaye Wade du ko ci bàyyi. donc am na yu fi am yoo xam ne Ablaye Wade du mais mise am bokk ci. donc Ablaye Wade dañ ko ci génne. mais tête tête de liste yi laa lay wax maanaam kilifa yi ci ñoom. ku ci mel ni Macky ku ci mel ni Macky Sall ak ay petit poussin am lañu. ñoom Barth. Mhm. Barth kenn mënu ko cee génn. Mhm. ñoom euh, kii am na ku ma fi tudd sànq Amadou Ba. si la mhm. bokk ñoom ñëpp si lañ bokk. Khalifa Sall moom. moom il est passif. nañ ci ñëw sax moom il est passif moom il est passif. moom dañ koy yóbbaale. dañ koy yóbbaale mooy seen kilifa dañ koy.